Assalamualaikum bokku Senegal, yi nek ci biir rew mi ak suñu mbokk yi nekk ci diaspora bi ma ngi len di nuyu di wax ne tay ji dama bëggoon waxtaan ak yeen ci programme Sénégal nag kenn mënu ko defar boo wàññiwul dund gi loolu moo bu le 24 mars 2024 bu ngeen ma falee président de la république dina wàññi dundugi, gi dinaa wàññi électricité bi dina wàññi ndox mi dinaa location bi ndaxte loolu boo ko Sénégalais yi dañuy son a li am moy il faut que ñu tabaxat Sénégal défar benen koom benen industrialisation bo xamné ni, xey ndaw yi dinañ ko régler sénégalais am liguey sénégalais am xaalis te loolu mi ngi commencer ñu industrialiser Sénégal li may wax patriotisme économique nak moy Sénégal yalla may na len xel may na len xalat te mën nañu liguey kon nak dina fexé ba ñu am capitaine d'industrie pour que ñu ŋànk suñu industrie defaraat ko. loolu nak pour mu nek il faut que mbay mi dox mbay mi bu doxul napp gi dox sàmm gi dox secteur primaire bi nga xam ni mi ngi concentrer 20% du produit intérieur brut manam li nga xam ne mooy recherche yi nekk ci réew mi vingt pour cent la ci secteur primaire am te secteur primaire mooy mbay mi mooy napp gi mooy sàmm gi boo seetloo ne quatre-vingt pour cent sénégalais yi ci secteur primaire boobu lay yëngatu loolu nag tant que mi ngi am Sénégal ndóol gi day gën a bëri jaaxle gi day gën a bëri loolu dinaa ko fi jënd fexe ba secteur primaire nekk au moins 60% pour cent du PIB. du ma nekkee président de la République képp ku lubal alal réew mi dinaa ko sëq ak yow ndaxte xam ngeen ne mënuñu nangu réew moo xam ne nii ñëpp a ngi sonn ñu ne ay politiciens am nañ xaalis te liggéeyul donc loolu dina jeex fii parce que dinaa xeex ger ci biir réew mi képp koo xam ne depuis indépendance ba léegi da nga jël alalu réew mi di ko lekk da nga jël réew mi muy suuf muy xaalis muy lu ma di nekk loo xam ne Sénégal yi nga aakimoo ko dinaa ko foqati telloo ko ci loxo Sénégal ndax Sénégal alalu Sénégal Sénégal lañ ñoo ko programme bi nga xam ne moom laa xaatim muy programme alternative suqali Sénégal ci domaine bu nekk. am na ay propositions yu concrètes yu ma ci teg asalaamaaleykum wa rahmatullah